man maay pop Seydou Ndiaye man international sénégalais tay ma len di dalal ci émission faral sa foot waaw di len dalal sama koñ fi moy HLM Podoa d'Oie waaw dinaa leen wax touti ci sama jaar-jaar aca bismillah bisimilah ñu dem noosal sa soos ñun ñu siim suñu cere noosal sa noos loo moom duñ la ko tere solal sa kos ñetti ab du benn beere lii def sa boos ci sa xel la du si yére ku xebul sa noos kenn dàqu la noos ku xebul sa noos diwaan baa ngi ah. mooy la kii mi ngi tudd Pawman Ndiaye nous ngi nuyu grand frère euh, Pape Seydou. Euh, bëggoon naa la laaj yéen est-ce que vous êtes une famille de footballeurs. waaw en fait Moi je suis son grand frère. je man dama de pratiquer football autant quoi mais étudier yi moo tax mu juma ko continuer. il a beaucoup de talent quoi. football lui, sax le moom la maîtriser que gardien de but parents yi ànduñu ci woon mais il a insisté. mu insisté ci ne moom la bëgg finalement famille bi yëpp bu see jàppale ko ci pour bu dem à ko ku yaru la dafa jox nit ñëpp cër man nit ñi ñoo ma koy wax ci mbedd bi sax man man ba ma ko commencé bàyyi xel ci loolu xam naa ni c'est un jeune bu yaru ku ma tasal mu ne ma sa rakk bi booy fu ma romb moom mooy ñëw ba ci man nuyu ma saluer ma du genre dafa jox ñëpp respect quoi o ban moom bu may wax ci Pape Seydou Ndiaye fii ba suba duma pare ndax xale bu yarul la xale bu baax ni nga koy ñaanal yàlla daal fi mu bëgg yegg yal na ko fa yàlla yeggal mënuma wax nag parce que fii fii bu may wax fii ba suba duma pare ci moom ndax xale ku baax la moo tax mu bëgg football sama doom yi ñoom ñoo tax ñu bëgg football bëgguñu dara dañ naan sax dootuñu jàng ndax fubal bi muy football ah waaw waaw léegi dañu jàngale. waaw booy foog ñu jàng. football bi football bi football bi ah, dafa metti de. football bi day remplir. waaye bi en classe de seconde. Ah, seconde la arrêté waaye. waaye c'était difficile metti woon de. Ah, parce que damay fàttaliku bi may arrêté. boobu laa doon def test Ice Douane. après buñ ma jëlé nak si la si la coïncider ak euh, fête décembre yi bi ma bi ma décembre bi ñu jëlé fête ñu reprendre janvier après dematuma école quoi parce que euh, entraînement yi moo ma emporté vu que réussir na sama test à douane ñu ñu jël ma si groupe euh, pro bi mané ah, li mom chance la boo xam ne dama koy exploité après voilà après yalla dina.

après man bi ma rek gis na mère bi kanam bi changé. dama ko xol rek xamni amna lu xew bima woy woowee néegam wax ak man dal sama kaw bima ñëwé aussi paa bi wax na ma lu né semaine yoy wala weer yoy mom metti wona trop ci man fii que man bëggatuma jangi aussi té début de débutant la won ci affaire yi donc mu nekk lu metti quelques mois après dañ ma sélectionné olympique. olympique bi ñu doon dem Maputo kii Maputo Jeux africains Mozambique jour bi ma bi ñu ma woowee boobu maa juge jugee entraînement douane le soir après ma wax ko maire bi maire bi nag laa njëkk bi ma duggisee ba jox ko rek maire bi laa woo laa laa ma ne ko dañ ma woo équipe quoi mu ne ma da ngay font rek yow da ngay caaxaan ban équipe nationale yow far nga football ba léewoo <laughs> ma ne ko ah suba de damay dem ñaanal ma quoi après laa woowaat coach Gaspard paas ko ko mu xam ni li may wax nii. c'est dëgg la quoi après waxu bi si lañ ma ñaanal aussi si la commencé waaye. waa Ndiaye sama papa naa ngi fi. ça yaa ngi ci jàmm. alhamdulilah ñu ngi ci jàmm. alhamdulilah dañu ñëwoon wax ni euh, nga yëgee ni dafa bëggoon bàyyi jàngam ndax football neexu la woon. Hmm. ah wax dëgg neexu ma Euh, mais nag mm. ñu ngi koy ñaanal nag parce que ku nekk ak sa passion euh, te loolu kii euh, mi ngi ci am ne toi sans ne toi soit peu daal mm. mi ngi ci am au moins dégg nga dara loo xam ni actuellement dégg nga ñi nga xam ni sax am nañu niveau dégg nga amuñu loolu kon boog dañ koy ñaanal yàlla rek mu continuer ci lancé bi et gën a góorgóorlu parce que aussi dem nañ ba yóbbu ko équipe nationale dégg euh, buñ ko yobbo ak euh, équipe nationale léegi il est condamné condamné euh, di def succès yo xamni motax ñu yóbbu ko fa lool daal laa amoon lu ma ciy wax man damay genn d'accord merci da ngay dem ni waaw ok

te bi dangay génn sa kër rek daw ñëw si tere bi ñëpp fii la daje quoi dañuy daje football amoon nañ fi ñu ngi am ay quatre cinq ans six yooyu mais fii lu ne def nañ ko fi moom. waaw yu jeex moom yàgg fi xeex tamit si mas <laughs> <laughs> ñu gagner la gañe xaalis bi du dem ak kenn xamul. waaye dañ fiy joué dañ fiy joué démb sama gars yi joué nañ fi sama copain yi teggi naa fi joueur nek nekk di ouais dugal. oui <laughs> dama doon comme milieu terrain milieu milieu défensif offensif jouer naa axe central aussi même qu'elle est jouer naa fi comme axe central parfois moi jouer milieu terrain waaw. soo nga tegoon doo ko yokkalee ci dëgg. non bébé yokkal sool. bébé yokkal sool. non fii sama saayit la sama saayit la xoolal sa waay léegi ancien joueur bu. <laughs> ay diw lay jaay bàyyi jaay diw xeesal nag baaxul. waaye moom jour la ba léegi non daan woon football yi jour la ba léegi boo dee daan football dafa mel ni woo de ah. non maa ngi football ba kii ñaari tali la doon joué junior ba yéeg senior. ba senior bi rek mu jékki-jékki rek. am blessure rek jàdd moo tax. mais si falaa falaa defee sama formation quoi jour de champ la woon jour de champ la woon mais xam nga rek parce que tamit amoon na taxawaay gardien bi affaire yooyu noonu te tamit bi mu ñëwee ci camp yi wane na ni am na ci tuuti quoi mënoon na raison de boobu tam ñu pousse ko ci ndax boobu jour yi bëri woon nañ bëri boo xam ne góol jafe woon raison boobu mu mun ci tuuti rek ñu pousse ko ko forcer ko ko waaw. franchement ñun dañoo ñaan carrière mu poursuivre ko à l'extérieur quoi ndax mérité na plus que loolu ndax man comme ni mu la koy waxee man ak moom enfance la j' étais témoin de lépp ba muy nekk douane jóge douane affaire yooyu noonu di ñëw ba muy ñëw ñaari tali sax fa la ma fekk. yaakaar naa ni moom amatul dara dara dara lu mu fi war a mën a prouver quoi franchement def na fi lépp lu mu fi war a def. am na foofu wala ma jéem yaa ma war a wala ma jaay waaw par rapport ak kii balaa nga may wax dafa lay wax. waaw gis naa loolu sinon. sant naka mu. ça va bien yéen ñu jàpp. sant yow de. ça va bien. ça va naka waa Gabe. waaw ñu ngi si jàpp. Ndaw Sow si nañ def. ça va bien waaye ñu ngi si jàpp. waaw kii sama grand la ñoom si kanamam la ñu màggee. ñoom ñooy suñu dirigeant yaakaar depuis bi ñu nekkee xale ba léegi. moom la ma ne la kañ dem si magu si magu kii bi quoi ay si. dañ koy encouragé bu baax a baax a baax. te di am nañ yaakaar ni aussi Aliou dina ko waat si équipe nationale bi ça c'est mon am nañ ci yaakaar quoi parce que aussi benn erreur aussi waru mën tax aussi nga les nit ki à rab comme ça quoi su ma suñu kër rek man maa ngi fii quoi su gisul gaale rek fii damay gis xam nga sama côté gaale ñoom d'accord ñu woon quoi comme moom si football bi lay yëngu depuis si la ko ñëpp xamee donc ma approché ko lépp moo Euh, man ba léegi ma toll fii quoi parce que fële su ma demagoon foofu su may football rek mooy loolu day metti dinañ la dóor xam nga dinañ la wax yoo xamante ni da lay découragé looy tuuti mais su ma ñëwee si moom daf ma si encouragé chaque jour mu naan ma liggéeyal rek fii moom boo bëggee football il nga liggéey quoi. waaw di ma solal nag équipement yi ma daan góoloo moom moo koy jox ay gants dàll équipement yëpp noonu vraiment. waaw ah, boobu ni si en si avance am mooy euh, man dama amoon sama benn jarbaat boo xamante ne kooku mi ngi mi Brésil mi ngi joué foofu ñoom la doon àndal xam nga par la suite consommant nag ñoom dañ doon ñëw sama kër xam nga pour fréquenté foofu après mu gis ko xam nga yaayam gis ni takk na ma quoi léegi nag après yaa ji ñëw expliqué mu bugg bàyyi jàng yaa ji ñëw expliqué ma ne ma comme quoi que ni kii nee na dafay bàyyi jàng ngir football bi xam nga affaire yooyu xam nga léegi bi mu ko waaye bi mu ko waxee loolu après nag man ma ma gis ko moom ñu toog waxtaan ma ne ko nag football bi xam nga affaire yi chance la quoi parce que comme Moussa jaar na si affaire yi chance la damay ñëw am na ñaar ñu ko gënoon ay mais woon am chance ñu algo jaar ko ma nekk xale franchement xale bu nga xamante ni déggal na ma parce que man xam nga franchement man boo nekkee ak man boo ma déggul rek du ñu mun a def te moom franchement déggaloon na ma

dem jaraaf waaw Ça va bien. Mam Fatou. Ça va. Ça va bien. Fatou. Yang ci jam. Ci moy suñu yaay ko. Mhm. Bien merci. Papa Siré. D'accord. Donc euh, Ok, maa ngi leen di sant bu baax ci ñëw bi ngeen ñëw. Passé du suñu doom la. comme ni mu ko waxee rek sama jëkkër moo ko yoroon muy Siré Diallo waaw mhm. bu mu ko yoree tamit def na ci moom lu rafet mhm. def ci moom yar ak teggin mhm. tey lii mu am tey mu am ko ba keroog ñëwee fii ñuy waxtaan nee naa ko ñu ñëpp kontaan lañu waaye ki waroon fekkee moom moo fekkee wu muy Siré Diallo du day li ngeen taxaw moo tax ñuy wax ci moom lu baax man moom daf ma jox cër lépp lu war sama diggante moom mu ngi koy def te laaju ma ko bañ ne ko mujj gi xale yi sax dama ko daan xale yi lu nee lañ koy wax mais moom du mer day foo day ree ma ne ko dee bu fekkoon da ngay mer kon dootoo waxatee xale yi parce que lu ne dañ ko koy wax mais bu ñëwee day ree mu jumal ne bàyyi leen jàmbur waay mais dafa am compréhension daal waaw kontaan naa ci moom di ko ñaanal yàlla yàlla yokk ko li mu nekk nii yàlla jëm ca kanama kanama kanam ak ñeneen ñi nga xamante ne Siré xale yooyu jaar nañ ci loxo Siré ndax du moom rek mhm. du moom rek am na ñeneen. bii mooy ñun suñu année. Ah, moo nekk nii waaw mu ngi wax ji bi ki ñu demoon léegi si poisson ji bi. moo nekk nii ki ñu doon waxal bi mu nekk Jean. ngi nii moo nekk nii keneen ki Assane. lii final bi la. maa ngi nii. wax ji ñoo dénn quoi. <laughs> oui. bi aussi équipe cadet bi la mhm. équipe suñu cadet yi photo final mhm. si match de poule yi la woon match de poule ah. moo jibi ñoom ñooy coach yi quoi ñoo nekk mhm. la woon bi suñu final la woon après final bi bi ñu demee siro bi ba pare. ñu gagné. waaw waaw waaw final euh, Grand Yoff la ñu gagné suñu suñu benn loolu. Euh, fii nga nekk nii fii Grand Yoff la. 2012. waaw 2010 2010. 2010 la boobu la mujjee kii nag ak équipe bi. waaw après si nga dem douane. si laa dem douane waaw. waaw. li ma doon wax sànq rek kii sama grand la sama mag la sama conseiller la sama sama lépp la daal te moom am na lu bëri loo xamante ne xam na ko si man parce que si kanamam la la la màggee et tout. Euh, asalaamaaleykum waaw maa leen bu rafet de jaare parce que kii yàlla ma moom seen kër laa njëkk dëkk aslem Padoa xale bu ndaw. Euh, bi ma fa ma nekkee daf ma taxoon ñu ne ba xamante ne tuuti mu nekkoon na fi si man mais li fi jëlee daa daw daw postu nga suur rek mooy suur bu si xool mais xool bi doon xool noonu métti ba di mu daw loolu ko jëlee nga am maa ko ñaan yàlla yàlla suturaal ko loolu ko barke si li muy liggéey yàlla yokk ko ba fi li séentu mu romb njortam waaw loolu maa ñu ngi damay dem entraînement quoi. yàlla yàlla def jàmm. yi tey dañ ñëwoon fii si ñaari tali fii sama kër la euh, mënu ma fi woon bañ a jaar sama journée bi ak yéen donc euh, yàlla dogal na def naa fi quatre saisons aussi ma xaar ma jaar fi nuyu sama gars yi. waaw moom mooy mooy diwaan bi quoi. fii samay grand ñoo fi nekk ñoo xam ne yàgg nañ ma soutenir euh, si moom ay neex ak yu naqadi aussi et di ma encourager di ma ñaax pour ma gën a dem ci kanam daal. fii NGB dafa nekk loo xamante ne pour man histoire la sama jaar-jaar mënu ma wax te du mu fi wax daal. man Pape Seydou comme sama doom la dama ko conseillé comme sama doom da daa ñëw toog dugg sama néeg ñëw ñu toog ñuy waxtaan dama ko doon conseillé. départ am euh, dem jaraaf. Euh, man sax commenté naa si si si si si si page Facebook am ne ñaari tali dañ ko war a remercier forfam bi gën a mag tegal ko bal nga ne da ngay dóor penalty da koy arrêté non je t'assure da koy parce que def na ko entraînement day toog ak booy di entraîné sax ne leen waa kaale ngeen door penalty pour dóor penalty mu jàpp ko il l'a prouvé devant tout le monde stade bi ñëpp toog ñu ñaari tali tase benn équipe ñu dóor ay teg ay penalty dóor mu jàpp ko c'est un excellent Merci beaucoup. Nice. nice. fii moom gars yi fii la ñuy xam nga fii la ñuy daje tout le temps toog waxtaan xam nga mooy loolu quoi fii moom sama kër la daal loolu laa mën a wax. gaynde Cette année, dinañ ko un Khadim Faye ancien gardien ancien international sénégalais aurait euh, les gardiens euh, de l'équipe du Giraffe. Nous avons seet ki nga euh, Pape Seydou gardien prometteur mais yow en tant que spécialiste quelle est la qualité Pape Seydou Pape Seydou il a toutes les qualités presque On a comme on a fait quoi tey bon doxee parcours gardien yi de a Sénégal

côté bu yu bare jot na joué yenn match international yi ak équipe nationale A bi du sax équipe nationale locale bi mais dama mëna wax ni que mom jaar na si escalon yépp moins de 20 ans yi moins de 23 ans yi ba egg si local lepp lepp lepp jaar na si te wane na ci avant lol do nam quand même bon pour man moo dara waru ko mëna té pour mu bañ a mën gardien au niveau tuuti un peu sur le sol. Mais nous sommes Depuis il est sorti, c'est-à-dire C'est-à-dire, peut-être euh, les balariens, les soit Mais sur le plan, euh, la communauté, euh, concentration devant les buts, aussi bien de ce foot avec Pape Seydou Ndiaye depuis euh, un peu jar ci HLM padoua nañu tali wax nañu aussi euh, ci li nga formation à à l'AS euh, joueur comme je crois que ni sur le plan local il n'a plus rien à prouver. 24 ans, euh, am chance de euh, jouer dans toutes les catégories pratiquement de l'équipe nationale. Euh, commencer que donc Khaleya, Batia Makia, def U23, def équipe locale, def équipe nationale A. Donc équipe nationale A bobu Pape Seydou lañuy taxaw touti ndax mënuñu ñak baña wax ci épisode septembre 2016 bi nga xamné yow dugg nga remplacer Khadim Diaye match Sénégal Burkina Faso malheureusement ñu encaissé un deuxième but Bon xamante bon bi mu amee Sénégal gi yëpp découragé parce que dañu concédé deux nuls contre ki nga xamné mo nékkone suñu supposé grand rival ci topantal ga woowatuñ la équipe nationale épisode bobu noko dundé waaw man limako dundé moy c'était difficile euh, metti wonna metti wonna trop euh, nek euh, ben moment ak équipe bi ngeen def lu nek jaar fune donc moment boobu nous li am am c'était difficile Mon métti trop mais bon football moo demee non. du Pape Seydou kese moo mus a jaar ci situation yu mel noonu donc euh, voilà ah, mais aussi jël naa aussi aussi sante ko yàlla aussi te xam Euh, moment bim ma arrivé peut-être c'est le moment bu bu baax si man mënoon na ma arrivé ci beneen niveau donc comme moment bii la ma arrivé ma ci sant yàlla on s'arrête sur quand même l'action. Est-ce que tu as l'impression que tu es fautif gars yi nga waroon bon contexte bi aussi d'encore rappeler da nga en cours de match match tendu euh, on jouait à 11 contre 10 Radim Ndiaye gagnou, nga Dougou. but bi souffle peut-être une partie de la responsabilité est-ce que responsable nga ci ci situation football ni ma koy ma moi pour man bok man bi bu mu munti demee ci football en tant que gardien de but am nga si responsabilité man lolay lol parce que tu es là pour stopper les buts donc ak nu mu munti demee rek am nga ci part de responsabilité mais le jour match bobu ni bi bi duggee dinañ né amna ci erreur am nga erreur mais bon football mo démé nonou et pour moi erreur bi ni mu don gëna grawé euh moy bal bi loobu def direct sur les buts mais bon bal bi dafa def effet erreur jugement là ça arrive mën naa ñëw trajectoire bi bal bi def na effet maa trajectoire parce que départ bal bi man gis naa ko mais bal bi egsi na ba si man def def def effet ça arrive képp ku nekk si terrain yow yaay xam situation yooyu donc def na effet dal si poté bi moment bi ma tourné si la dal sama kaw mu dugg mais bon dañ koy jàpp football waaye voilà après ñu continuer suñu liggéey c'est vrai que avant même que euh, on va dire nous écarter entre guillemets de la sélection les Sénégalais ont été quand même très très durs sur les réseaux sociaux euh, période boubou comment tu as fait pour euh, justement résister à tout ça d'en rapprocher ou de ta famille tu as discuté avec des gens proches nous def pour en fait vivre cette épreuve là parce que c'était quand même assez difficile. oui c'était difficile parce que personnellement je me fuyee euh, le bëri ici réseaux sociaux parce que gars yi dañ may appeler de gauche à droite di ma di li lii lii lii man du ma fuye loolu nit ñi ñooy ñëw rek di wax mais bon man concentré woon si si li ma nekk terrain bi la amul affaire donc euh, damay liggéey sama entraînement après terrain bi bu ma si nekkee ma def li ma war après ma dem méttiwul ma woon parce que ben regret la si am moy man duguna ma jël bi bi ci moment bobu parce que kep kuy sénégalais xarul won lolou quoi xarul won lolou c'est lolou non la metté peut-être bu fekkone du moment bo xamantene moment bu crucial du demee woon nii. match yi nga joué par exemple avec ñaari tali ban match mo le gëna marqué. waaw match bi ma gëna a marqué ñaari tali moy match contre Casa.

moment yooyu pas si terrain bi sax mais moment boobu moo ma gënoon touché ko parce que kilifa yëpp génn nañ ñaax ñu di ñu wax affaire yoo xamante ne ñun sax xalaatuñ ko woon si si si ñaari tali quoi vraiment loolu man personnellement marqué na ma gën ma dooleel bi nga xamante ne nii egg nañ si terrain bi tamit ñu wane fula fayda yàlla def li muy def quoi may ñu dem. équipe nationale ban match moo la gën a marqué bi ñu la njëkkee woo équipe A lan moo la gën a marqué. Ce qui ma marqué aussi si équipe nationale le moment bi ñu regroupement en préparation avec l'équipe euh, olympique c'était avec Serine Saludia, coach olympique on était en regroupement euh, avec suñu coéquipiers Les africains lañ préparé ça c'était deux semaines avant dix jours comme ça euh, ñu nekk à l'entraînement et tout parce que man sama chambre presque gars yi fa la ñuy nekk ñu toog plané waxtaan foofu après entraînement avant entraînement yooyu yëpp fa la ñuy nekk teg ak suñu ataay yooyu après ñu entraîner un jour ñu entraîner ba pare dem sangu le soir ñu reer ñëw toog si néeg bi déglu suñu musique teg suñu ataay man maay ataay foofu après par la suite euh, Mamadou Salif Ndiaye bi bi yàlla jël ko mu jóge mu ne ma ngi dem sama chambre maa ngi tëdd quoi tey dama sonn après mu dem tëdd après gars yi fa lañ ñëw di imam quoi après ñu dem sen chambre tëdd ñu tëdd vers ay cinq heures yooyu fajar bi après mu kii si la ma ñëw fogg quoi Sissoko Sissoko ñëw fogg ma ne Seydou Zal dafa mel ne am na lu tiital moo boobu la ma njëkk wax ma ne ko tiital nu mu demee noonu mu ne ma kaay fekk ñoom ñaar ñoom ñooy bokk ñooy bokk chambre quoi ñoo nekk na woon sinon et ma ma jug yaru mu ne sax laa def ak sama kilote après ma dem si néeg bi léegi moment bi ñu egsee si néeg bi nag ñi ngi ko fekk mu tëdd si suuf quoi tëdd si suuf tàlleeku et tout mbàjj bi la bi mu tëddee noonu ma ne waa lii la ma ñëw approché ko jege ko tàpp ko zaal zaal zaal mais dara yënguwul si moom ko affaire bi yéem ma yéem ma rek ma daw woo docteur bi jéeg docteur bi ma daw woo ko mu ñëw après moom mu ñëw xool ma dem woo coach yee coach foofu la nekkoon yee ko moom mu ñëw tamit euh, doc mu xool le temps muy xool man ma ñëwaat aussi xool xool ma sentir nii sa dem na après ma ne toog. kii dem na de toog ne ma bàyyi li ngay wax kii dafay nelaw rek dañ koy dem réanimer après man maa ko yëkkati man ak Sissoko euh, ak Nestor Nestor bi jàmbaar bi nekkoon jàmbaar ñoo ko yëkkati dugal ko si oto doog ñu évacuer ko indi ko fii principal mais man bi mu ko xoolee la sentir bu yàgg nii sawaay sawaay dem na ko moment boobu moom mu gën a marqué si si sélection bi moment bu difficile la woon di préparer veille préparation euh, tournant Jeux africains yàlla def loolu muy def mais loolu tam ñu ngi koy sant yàlla suñu borom moo tuddoon loolu aussi te moom mu ngi doon jaayante lu nekk pour chaque jour si loolu lañ doon wax bu ñu demee fële bu ñu demee fële nii wax nii la ñuy def pour rek suñu borom may ñu ndam loolu te yàlla boolewu ko si mais yàlla li muy def rek.

donc euh, yàlla na jëm kanam ñu ngi lay ñaanal euh, vraiment li nga sentu ci football bi yalla defal la ko di la remercier di la bàyyi nga joxe sa dernier mot. waaw di di la wax aussi bëggoon na tay journée bi aussi mu fekk fa sama yaay parce que dafa am ben benn dëj bu mu dem quoi vraiment nek na nit ko xam aussi marqué na sama sama sama aduna quoi vraiment waay waay kon nañ ko kay dédicacé da nga koy dédicacé émission bi waaw dédicacé nañ la may nañ la émission bi Tay nekkoo fi mais am nañu la fi nekkaloon aussi vraiment di la ñaanal aussi nga fekkee suñu njëriñ yëpp euh, vraiment ba ñu tuddee la ay turandoo yu dul yu dul jeex waaye merci beaucoup merci Pape Seydou gars yi tamit sama caméraman yi sama sama gars yëpp maa ngi leen di bégee ah merci beaucoup merci technique euh, Faral euh, rendez-vous euh, ci numéro Pape merci. merci beaucoup à bientôt merci